maanaam day wane ni lu mu ni noonu la noonu lu mu ni du noonu du noonu loolu kat mooy la tafan luy shay am rek bi xëyri isnin loolu nag dafa laaj ju déggiin niyatul xayr wa xawlul xayr wa fexlul xayr mooy base bi yéene lu baax di ko wax di ko def loolu képp baas base bi ak gàtt dund gi dafa gàtt te fi ñu toll kenn ku ñun kenn ku nekk ci ñun bu jógee fii boo demee barsàq bu ñu la tàmbalee indi leen xéwale àjjana da ngay bëgg di yootu say xarit ndax da leen ci yéene <laughs> da leen ci yéene te gaañi fi ñu toll kenn du leen tuddal dee te dee moo gën ci ñun mais kenn doo ko wax rek mu ni yàlla tere fi mu nii foofu xéewal gi ëppee waaw murit moom murit moom bu faatoo bu demee fee bu xéewal yi nare yi ñëw rek mu tàmbali di xalaat ay xaritam pour xëcc leen pour ñëw ñëw am ci xéewal gi noonu la tëddee moo tax nag ah man de duma fi nekk sax naan nan ñaanalante fan wu gudd ak wér yooyu duma ci fekk waaye yooyu duma ci fekk ndax daal ndaxam daj dañuy fépp jii moom ndem génne naa ko ci li ma bind te fexe naa ba li ma lépp nag mi ngi tege waaw li ma naa itam ba li ma fi naroon dund <laughs> déedéet dama koy codé ma ma xaar xaddi de su ma demoon ba mel nii photo bii ma leen woon nii su ma demoon ba mel nii itam dama je resterai toujours jeune gis nga bu ŋaat ŋaat jotee wala geeto ñu xam ne rek ndaw laa du ma Ablaye Wade bi muy wax ci livre bi sama 60 ans c'est parce que dañu ko yéex a génne waaw fi mu toll 66 yi mat na waaw góor gi da doon àpp pare rek 66 yi mat na toujours xale yi dama leen di wax ni di leen wat si kiim yéeg ak moustache yeeg yooyu bu ñu àndee rek boo moytul yeneen sama bàyyi bu ngeen waaw am na dafa am force intérieure boo xam ne ku tedd ki moo koy baaxee nit ki waaye ci ay mbindam nekkut ak dem yéeg ca vélo ba maa ngay kiti kiti naan na ngay daw 4 kilomètres ñëwaat lu ne nga dugg ca di foox fooxi du loolu du loolu xale yi dama leen di jàngal inspiration ak expiration pour être yogi di am condition intérieurement et extérieurement su ma nee leen waxsamani bi ñu man ko waaye bu fekkente ne nag waajaloo ko su ma la woy lool doo mën a woy parce que fi ma bëgg nga yegg fa doo fa mën a yegg man bika tasam أنت الذي تحسم من بك اهتسم إني بك اهتسمت هب لي مهتسمي أنت الذي تحسم من بك اهتسم بك اهتسم أنت الذي تحسم من بك اهتسم بك اهتسم بما موني إني بك اهتسمت هب لي مهتسمي xaadim nee na tasamtu habli muhtasami لم ينهني زجر ولا وحيد لم ينهني زجر ولا وحيد وعمري إلى الجنان يندتي دفل وعمري إلى الجنان humri ilal jinnaani nun de tey de feet la humri ilal jinnaani nun de tey de feet la humri ilal jinnaani nun tey de feet la wa humri ilal jinnaani nun tey de feet la humri ilal nun tey de feet la humri ilal jinnaani nun tey de feet la ma ñëw waaw xam nga léegi damay bañ mbégte mi ñu koy manifester ba mu ëpp c'est important ndax kilifa yi dañ fee nekk te ay kilifa yebal leen fi dëgg la peut-être ki dafa bari yërmande te ma wax leen am na yeneen yu way yoo xamante ni bii jigéene àjjana dañ koy ànd ak ñoon ak xale àjjana wajhalha mimma tataganna biha lahurul ayn wal wildan fil janna ca tarjumaane mawaahib moo wax yàlla ne ko na ko def xaside gi jigéene àjjana ak xale àjjana di ko woyantoo man dañ dañ may jox way yoo xam ne amul fii dëgg la moo tax kenn duma gaaw a comprendre dëgg la kenn duma gaaw a comprendre parce que way yi may jox dama koy jële ca ñoom xaw ma di ngeen di settantal ni may woyee wala déet ak air am na ci yoo xam ne yuy jinne la am na ci yoo xam ne yu waa àjjana la صدقهم صدقهم صدقهم صدقهم صدقهم صدقهم سفروا بامسا شنجان ruhu bila nihayatin wa xidmati taqabala loolu dafa bokk ci juróom benn fukki bayit ak juróom benn yi ma wutlu te ku tedd ki di ci woye yonent bi al muntaqa man boobu laa ci féete woo lil muntaqa tub maa yasu ruhu dafa yàlla ne ko mentionnel ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu koy bégloo te sans arrêt bu mu am fu mu yem te li may wax nanga ko nangu sama liggéey sama œuvre nanga ko exo exogé lil muntaqatu ma yasurruhu bila nihayatin wa qidmati taqabbala moo tax juróom benn fukki bayit yi ak juróom benn te mu tuddi ci muntaqaa man boobu laa ci féetewu waaw moo tax ma bëgg ni dem ko tëdd ki buy bind aras di yëm ci benn tarjumaani allahu muhammadu yi muy bind te def benn allahu muhammadu walla mu def ñetti allahu wala ñeent wala juróom wala juróom benn wala sax mu def ñetti muhammadu wala ñeent wala juróom wala juróom benn am na ci boo xam ne daf ni ko dafa wax ni dafa wax ni kataballahu tabaraka wa أن هاتين القصيدتين حفظتهما حملة العرش ñoom faddat waayaa ilu juróom-ñetti malaayika yi nga xamante ne bii ñoom ñoo téye arsh yanu ko ku tedd ki nee na dañoo mokkal ñaari xasiidaam yooyu hmm? ñi yenu arsh mokkal ñaari xasiidaam di ko woy malgré li yenu ndax diisuñu ndax li ñu yenu moom bañ ko dalee yenu yàgg te dañuy continuer di ko yenoo rek ilal abat ndéem ñooñu nag ñoo yenu aras ba noppi te boole di jàng ay xasaa tam xanaa nun lu nu sàggan sàggan bu ñëpp jàngul arab yi tam tradition ngi wala fa ngi fi français ngi fi français ngi fi di ñu ngi koy traduire nu nekk ku tedd ki nag ba mu ne barakatul maahi ala yam tasharat mhm. wa hasamat mhm. ah. dafay dellu rek ci li maître doon doon wax léegi maanaam bamba fépp ji hmm? moom moo ne barke bi dafa tasaaroo ci moom <laughs> bu tasaaroo ba noppi nag xanaa ba nga yëg ñu ne war nañ cee jéem a bay sunu laaj lu nu lompoñ lompoñ ñu ne xanaa war na noo tasaare ndax li mu tasaare ci suñu biir xajul ci ñun moo tax mbokki tàllu bi naa leen baaxee tuuti muy lan mooy gis ngeen xasaayit yi lu nu xër xër xër xër xër nañu def attention ndax naq lii mi ne ndaw mafousi abada du inspiration du waxi nit du wax ci nit de gis naa fi ñoo xam ni dañuy durus jaalibatul maraaxib di foox fooxe gis nga da di danaan yow yaay chef ñëpp lool la lay wax yaay chef ñëpp lool la lay wax waxi malaaka tuuti nga ci ñam te kat ku tedd ki dafa bari yërmaande xoolal alif lam mim innama sabilu wala tujadilu kaamil bi jeex boo xëyee yor liggéeyu jàmbur hmm? allahu min kulli karimin akram man amu xadlahu takarum aslim lahu kullaka xan imani wala zimil ihsana lirra wajjihu bi shukri bila kufrani tukfa xisaabahu ma amirani kaamil bi jeex da gis ku yore kurus ni ay mili ay ay milliers de fois te yor liggéeyu jàmbur ku tedd ki mi indi la astaxfirullaha ma laxa sabaahu wa ma taxannati tayru fi l axsani bi naxal xaalam bi ni mu toll univers bi ni mu toll oiseau yi ci nekk yépp picc yi au beau matin suba teel ci branche ku nekk yi mélodie mu ne ñoom ñépp seeni mélodie ni mu toll maa ngi lu yàlla mu toll moom loolu la ñu defal ci taxmis ak astaghfirullah adadal mustaghfirina wa ma yastaghfiruhu maa ngi jéggalu yàlla nombre bu toll nii ñi koy jéggalu ñëpp ak nombre bu toll nii ñi ko dul jéggalu ñëpp nit ñi jeex subhanallah noonu allahu akbar noonu lu ci nekk daf na koo jàngal ndax boobu dàkkaafu na jamono xam na mujj jamono xat-xat yi ak yitte yu bari loolu dañ ko war di leeral ñëpp waaye da ngay gis ku toog di werd ba jéem a ñëw fuur di werd di werd day mujj dootoo doon nit gis nga ndof gi ñu may jiiñ ñooñoo ma gën a doppor waaw almaki ahmadu